cek cek cek sama ah boo ma seetaanee tey du nu reer de sa mag dee ngi nii dërëm yoru ko ñaari fan ngi nii dama dëpp cin bul xool ci ne ma mel nag defal te yàlla rek tax du dërëm bu ma yor lebuma la dama laa ñaan awma lu ma la de yow kii ci kër gi yow yow yow yow dangaa mënta xool ci moom lii mu am yow war ngaa am lu ko ëpp gis nga nit ku nekk fulla ak fayda moo ko a may lu mu am ah bëgg na nga am sa fulla am sa fayda am sa caractère eh eh soo jël yëkkatil sa paan bi delo fele mu aram dama wa gis nga jigéen dafay sagu ba mel ni lay jigen jigéen fay am lu bax lu muy bëgg lan mo tak nga bëgg rek yow topa waju bax maa la takk woon bañ lay tak fa ma la fekk da nga defal xawmu da am xelal dalil jógal. kon yow lan ngay doye waju bax sa kandana eh, mo ngi fi di toj. dakk bi foofu sekk moom daa amna xaliss détails yu sew yi doo ko bàyyi et puis looy fóotee fii booy fóot doo yem fi ma la yem loo xoolal am naa appartement day ci yem laa la wax bu ma indil benn problème kër gi def nga ko arène nationale ngëj te buñ ko mirasé billah buñ ko jaayee na ci génn xaalisu douce bi ndax tabax ko salam alaykum salam alaykum sekka ah xam xam waay wax waaw kay waay wala man yow la soxla waay soxla sekk laa doon wax ko yow mii laa soxla. waaye wallaahi su ma doon dee ak xiif mbaa may lekk xeer du ma taalal samay loxo di ko taalal euh, euh, waa kër gi hmm, yaboo ma leen ñaan du ma hmm. faale ma seen dara. ren la gabon neexul rek barki démb fii fii laa toog di xëm ak xëmi ku ma doon xëpp ndox du yow lu ko waral du xiif ah. eh. yow lii ma gis lan la yow. yow man dama laa faale sa ñaari junni. man su ma doon dee ci ngor damay dee ci ngor. Hmm. man sama sa ñaari junni jënd ko man su ma doon lekk xeer soxla ma sa dërëm ah lii tax nga may woo ci mbedd mi man gor laa man su may dee xiif damay dee xiif ma sama soxna man gor laa yor ñaanu ma la soxla ma sa xaalis. lii boo ko amee téye ko.